ah. pin yaa yaa ngi sa copain de moo géej. ah. kan kan mooy number one. ma jël ko. jël naa ko géej. jël ma jaxum pa. jaxum <laughs> <laughs> le meilleur de sa génération. waaw dëgg la. waaw de sa génération. y a beaucoup de jeunes de milliardaires pour derrière pour toi. moi je tenir pour chaque jour. Tu comprends pour moi. Hmm. travail y a lutte. ndeysaan moi j'ai travaillé pour toi pour nous ah, a waaw ah, sa copain waaw ñaari <laughs> moom mi ci combat ba léegi de. <laughs> <laughs> <laughs> non number one ku fii kuy oh, number one. moom boobu xam waaw xamante woon ngeen kay. non non non boobu xamoon xamoon. doon ah? <laughs> boobu mën amagul. amagul dara. <laughs> mais léegi mais ngeen a bokk léegi mais dootoo leen bëri de bokk ngeen gaañ. doomu xaj la fi noonu nekk nañ jàmm. Ah. dugg na ko na ma laaj. bu siraab bu siraab. ragal loolu. du wax erreur bàyyi ko. mais comme waxee wax dañuy waxtaan. fii moo gën moo gën ko waay jëlee Aron Kier sunu copain la ma ne na ah, ko dugal loolu Aron Kier. waaw du ko dugal la ko moo gën la. mbërgale mbërgale yaay mbërgale. mbërgale yaay bu guddee nga ne lan. yow ne nii moom wuyu ma nan moo dara fi mu ne nii. fi ne nii moom wuu benn Range Rover bu baax lëkk ko moo gën laal moo gën Range la la jox. góor maa lay siiwal ah mo yow yow xam ne lool loolu doo ko wane fii nelawoo doo ngaaka Range Rover la la moo gën jox combat ngi noonu taxawaat combat bi taxawaat mais revanche bi kañ la <laughs>